waaw laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullah salaay salaam ba ma santee sama ndey sant sama baay sant sëñ Abdou Karim Mbacke borom max la di sant baax a baax a baax a baax baax baax baax di sant na waa kër sëriñ Touba yëpp ndax ñun amuñu kenn lu Touba xam nga tey boo xoolee makkatal mu koran bu aji bu jotee ñëpp dañuy bëgg a dem ndaxte boo xoolee borom doole rek a fay dem ñun ñi nga xam ne amuñu doole nag màggal Touba heure bu jotee suñu yitee suñu lépp lu ñuy bàyyi ñëw ziar si sëñ Bamba ñu ne amuñu kenn lu waa kër sëriñ Touba di ñaan yàlla na coronavirus bi nga xam ne dafa lëmbe dëkk bi yàlla ñu ko yàlla teggi sa darji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ku ne rek na nga ñibbi sa kër rek ñu ne coronavirus bi jeex na fi xam nga ni sëñ Bamba moo yor mbir mi dañuy ñaan yàlla nag xam nga te rëqët yëpp yàlla na yàlla jàppale si darji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam si barke alquran al karim waaw sëñ Mountakha nag yàlla yàlla guddal ay fanam ñu fekk at yu bëree bëri yàlla nam ñaari téeméeri at yu manqué ñaari fan lu may ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke rek loolaa ñaanal sëñ Mountakha ndaxte mooy ndeysaan xam nga am yoo xam sax su ma ko dee wax sama sama ndeysaan dama gaaw a te damay ñaan yàlla daal waa Touba yëpp yàlla ñu fi am jàmm yàlla guddee seen far ñoom ñëpp sa daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi daal yàlla na ko yàlla teggi bala corona bi nga xam ne nii dafa lëmbee maanaam corona bi daa am bayre rek waaye lu am bayre am bayre am bayre am bayre ay waay Bamba waaye du kenn ku dul moom barke Bamba